sanc na Tayba mooy dalu bi diw ba mooy dalu barhaamu ci aw rajab bisamba yawmal xamiisa fii waxtil asri la kutbu wàcci soodaan kene harasi yeppuri billahi guddi keroog la leere yeppu jolli lilam di fecci ngir bigi judumba kon mawlido judumba jarna màggal képp ku def julit jogal màggal ko mawlido juddum ba jar na màggal ku def julit jogal màggal ñu dellu ci beneen muhaadar beneen borom xam-xam di cheikh ahmed ibnu cheikh ahmed tijani al khalifa euh, mu ñuy waxtaanal nag ci delluwaat ci njàngat ak Mawlana cheikhul islam alhaaj ibrahim Niass njàngat yi nga xam ne moom la Mawlana cheikh ibrahim Niass suñ ci delloowaatee rek problème yëpp dana saafarawu kon ñu déglu Cheikh Ahmed ibnu Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass ci waxtaan wu am solo boobu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani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 على سيدنا ومصطفانا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن شيخي وحبيبي شيخ الإسلام الحاج إبراهيم الناس شتان بين المالكين نصابا ملك القلوب ويملكون رقابا شتان بين المالكين نصابا ملك القلوب ويملكون رقابا وملكت من هذا الغرام قليله فاستفتحا بقليله الأبواب قلبي وعقلي والقوافي منذ أن زملتها تتصيد الكتاب ما كان كل الصيد في جوف الفرا حتى تمع نواتري فأصابا هذا الفؤاد أنا الذي خبأته عن مقلتيك فصادف الأهداب علقت بين البردتين علقت بين البردتين مدائحي وسواي يعلق غادة وكعابا لا ناعس الطرف الذي بايعته في النوم كنت ولم أك سيابا إني وما علمت منطق طائر أشدو بمدحك جيئة أشدو بذكرك جيئة وذهابا إني وما علمت منطق طائر أشدو بذكرك جيئة وذهابا لله طبع الورد يخفي عطره wa yuqimu min alwaanihi xujaaba xaawaltuhu fa taxaddarat min laa yadin qataratuhu fa damamtuhu fansaaba laamastuhu aw kittu lawla an raa burhaanahu qalbi fa aada wa taaba wasafa ixaau lxubbi raqa zujaajuhu حتى رأيت وما رأيت شرابا لكن ماء سالا أو كالماء من وعلى حواشيه فشفى وتاب وطاب لكن ماء سالا أو كالماء من وعلى حواشيه فشفى وطاب ارجعت فيه الطرف واسترجعته في كرتين فغاب فيه وآبى صنعت على عين الرحيق كؤوسه فكأنما شرحت به الأسباب ما بين منبره وموضع قبره خط الجمال لقارئه كتابا ما بين منبره وموضع قبره خط الجمال لقارئه كتابا قرأت على يده الشعوب ولم يزل في كل سطر يشرح الآداب الحضور الكريم damay làkk ay baati arab nag li hadihi al aadaan alsaagiya astasmixu baadi adi badiin fa amuru murura kiraamin ala alislaami wa darbeyhi min maani alislaamu min maani alislaam alistislaamu wa min maanihi kadalika alsilmu wa salaamatu أبين لك ذلك بأدلة قطعية الثبوت فأقول لك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لينالوا الكمال الحقيقي والكمال الحقيقي لن يتأتى إلا بالعبادة المحضة والاستسلام الخالص لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuuni inna allaha huwa arrazaqu dul quwati almatin انطلاقا من هذا النص الشريف وهذه الآية الكريمة نلحظ من خلال هذا النص القرآني ونرى مبدئيا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلائق إنسهم وجنهم علويهم وسفلهم إلا لعبادته idan hadihi masala wa xaqiqa aw xaqiqa xariya bi tadabburi wa taamul فالخلق والعبادة مقدمتان كما تقول المناطق تنتج عنهما نيل الكمالات المطلقة والكمالات المطلقة في اصطلاحنا نحن الصوفية هي المعرفة بالله من لم ينل معرفة الرحمن أعماره ضاعت مدى الأزمان هنا في مدرسة شيخ الإسلام ينبغي بل يجب على المريد السالك أن يرى الله بل يشاهده في كل شيء ويراقبه في كل حركة من حركاته يظهر من شيء لدى شيء ربما تكون لكم تلك الأحكام المسبقة الطازجة وهي آه هذه باطنية أو هي وجودية أو وحدتها أو وحدة الوجود فأرد عليك بأنها لا هي تلك ولا هي هذه وما هم ببالغه إلا بشق الأنفس الخلوة ذكر والجلوة فكر وبينهما تنتصب معارج الروح ولا وصول إلى مدارجها إلا بالضرب في الأرض حتى مجمع البحرين وللطريق عقبات ووهاد فللجبال تعب وللصحراء لهب والسائر بينهما يتعلى ويتدلى بين خفاء وجلاء يتلذذ بالضنا ويتغذى بالنصب ومن ظن أن بلوغ ماء مدين بغير سفر فهو واهم فاحمل مزودك على عصاك يا قلبي وارحل فعلى شاطئ الجوار الآمن توجد منازل المحبين مقطع شيق من رواية عودة الفرسان سيرة محمد فتح الله كولن للأديب المغربي المرحوم فريد الأنصاري تلك القصيدة هي من قصيدة من قصيدة الغار البائية التي استفتحت بها حديثي هي البائية تلك لي من قصيدة الغار للأديب السوري الشاعر أنس الدغيم في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمل صدق رسول الله طابعنا محمدي ينزل طابعنا محمدي كل من أخذ وردنا ينزل عليه وتحصل الشفاعة له ولوالديه nassun qudsiyun sharif an ilxatmi tijaani radiallahu anhu fi tasrixin qadimin li waziri lkayaan alsuhyuni musha dayaan qaala fihi binnas innana la naxsha alcaalam alislami والعالم العربي إنما نخشى أن تعود تلك الزوايا التي تخرج فيها عمر المختار وعبد القادر الجيلاني وعبد الكريم الخطابي إذن hiya haadihi wamadaatun usdiha lilaariba walmustaariba shahid allahu akbar sëñ bi ni ñu def ñu ànd ak nodd gi wala ñu bàyyi ñu mu dem waaw yow moom mutasharri'an am bopp baxru shariat Cheikh Mouhamadou Siraaju Diin bu ñu nekkee Qaahira mu ne man la bàyyi di wax wa za ah wa za wa anta siraaju diini wa taw saati'u ma ne ko ah waaw man itam ma ne ko man maay wa za ahmadu da anka maanan wa xaatima نقول أن هذه ومضات أسديها للعاربة والمستعربة المتواجدين معنا عموما وللأخ الحبيب أحمد دام نيان على وجه التخصيص baat yi ci arab doy na ngi wax waaye kenn déggul mu ne ñu xulli rek ñu xujj rek waaye waxuñu nañ wax ci arab alhamdulilahi waladi al imam aba bakrin ibnu alxaaji abdullahi ما معنى تجلي الاسم الأعظم العام وتجليه الخاص وما الأسماء العاليات والأسماء السفليات والحضرات شفع أم وتر وما الحكمة في استشهاد ابن الشيخ الأكبر محمد الكبير وما معنى تسمية الشيخ ابنه الكبير محمد بالكبير هل له مفهوم أم لا؟ وما الحكمة في ظهور الشيخ رضي الله عنه بالمغرب وما موجب كون الولي الكبير لا يرثه الكبير من أبنائه وهل العارفون يطلعون على علوم لم تكن للأنبياء لم تكن للأنبياء قبلهم أم ذلك مستحيل وهل الخلافة الكبرى تكون لأحد قبل الأربعين كما وقع ذلك في النبوة قليلا أم لا يصح وهل يجهل القطب أنه قطب قبل جلوسه على الكرسي والسلام وكتب إبراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني ci leetar bi laay waxtaan lajna saqaafiya jasaha allahu xayran joxoon nañu fursa ci tey ci ngoon ak tey gi ñu indi ñu thème ñu ne thème wi nañ waxtaan tey ak mbokk yi ci thème woo xam ne ñu ngi ko dippee daruratul awdati ila taalimi cheikh al islaami darurat alawdati ila taalimi cheikh lislaami lajna saqaafiya ñu ne ñu génne nañ ñu baytul xalwa ñu nga ci ab ruq rek di du salaatul fatiha yi du jeex waaye ñu ne ñu génnal baytul xalwa nga ñëw toog tey waxtaan ak mbokk yi ci tem woo xam ne nee nañ daruratu l awdati ila taalimi cheikh lislaam yi mooy tem yi ñu war a waxtaanee tey waaye wax dëgg yàlla al awdatu ila taalimi cheikh ibrahim du darura kooku xatmi la xatmi la benn ndax bàyyi jàngalewut ay waxi boppam wax yàlla la fi jàngale kitaabu la fi jàngale alquran kon boo nee dañuy dellu ci ay njàngaleem kon dañuy dellu ci alquran te dellu ci alquran xatmi la kooku waajib la wujub ayni yàlla nee na la fa in tanazaatum fi shay'in farudduhu ila allahi kon dañuy dellu ci njàngaleeg baay kooku dellu gi for force la ndaxte njàngalewut ay jàngale boppam alquran la jàngaleeg sunna waaye pour nga mën a dégg thème wii dangeen ngeen may jox thème nag tënk ma papa jazaahullah xeyran tënki na ma nee na ma waxal ba doyal waaye léegi incha allahu li ñuy def mooy dinañu ñëw defal leen conférence bu neex a neex a neex léegi ñu ne ñaari tubay la bu ma indil problème ñaari tubay la dama kuli waaw man ñàkk a rek waaye sama moom xam nga ko mooy xuj qiblatu ahli shuhud il faut nga génn ñaari tuwee laa sol oh, mu ñu di may weer fii ne ma jóge rek benn waaye indil ma Oustaz Ahmed Dame ñang moo ma yuppil li yow ñëw léegi su ma bàyyi ji Cheikh Hamdou Sara ji nee ah lii rafet na ma ga ah, lii day dafa am ku ma ko yuppil mu ne ma doo ma ko yuppil ma ko Ahmed Dame ñang ko sole te bu ma ko solee bu ko sol benn pyjama léegi nag ma ne ko ah, moom sax dafa rafet hmm? léegi مرحبا مرحبا ضرورة العودة naa la xat mi la du xut du daruura waaye bi ma jàng sànq marhaban marhaban am cheikh pyjama la sol ñu jox ma dara ma sol bay ah, moo njëkk si nga imam malik kayfa alxaal qasim sharif sharifuna kayfa xaalak waa léegi ñu ne leetar bi yii nii ñu jàng sànq ci lajna saqaafiya fursa bi ñu may ci ñu ñëwaat dëgg yàlla ñëw war a waxtaanee lenn ci njàngale Cheikh Ibrahim njàngale gi nga xam ne jàngale na waaye nee naa la leetar bi ma jàng sànq ay question la question yi bu ma xaar ne dama la koy tontul par benn benn déedéet te yi lay question ku ko xam itam sa diggante la ak bàyyi waaye nag bu ma wax itam naan ma kalaamul awliyaa yi lestu afhamu Cheikh Ibrahim boo bokkee ci madrasaam ku waa lu waay wax ak ku mën a doon ak foo mën a bokk boo koy tegalee taalibe bàyyi dina ko firi ba tegal la ci kon ñun kalaamul awliya yi lestofamo du dusuñu wax duñ ko wax waaye nag terewut yii lay question bàyyi daf koo jox magam alxaaji Babacar laaj ko waaye bu mu wax ne alxaaji Babacar ko moom moom kese déedéet leetar bi képp ku ànd ci bokk ci topp ak Cheikh rek su la neexee soo mënee nga tontal tontu muy sa digganteeg Cheikh Ibrahim muy leetar boobu ma jàng sànq waaye nag terewut man ci conférence bi nga ma ñaan ni dinaa la tontu dimnan aw tos telmiix telmiixaat isharaat yu dinaa la jaaral ci dinaa la tontu question yi bay question na yooyu yëpp waaye tasrixan déedéet waaye nag pour nga mën a dégg thème wi nga ma jox yaa oustaz Kebe kat thème yi nga ma indil keroog muy daruratul awdat ila taalim Cheikh cheikhul islam pour ñu mën koo dégg da ngay jël sa téléphone nga ne benn gannaaw léegi big xewatut da nga naan pointel benn dinañu xam lan mooy cheikhu dinga am lu ñuy wax almuridu di nga am lu ñuy wax adabu soxba hànd gi ñoom ñaar dox googu seen diggante li ñu seq lan kon da am benn mooy cheikhu nga xam luy sëriñ xam luy muridu xam luy aadaabu soxba ñett yi ret su ma la ci waxtaanalee ret mu pare ret bu la neexee loolu moom mooy tem wi as soxbatu aarifin yi dañuy wax ida kanat lillahi kanat nihayatuha alhamdulillah hand bu fekkee ne yàlla la ñaari taraf yëpp ñoom ñaar danañu toog tëdd benn bés ci seen i njëganaay kenn ku ci nekk na alhamdulillah waaye tamuñ kanat li gayrillahi kanat nihayatuha inna lillah su fekkee ne xaandi gi du yàlla ñaar ñaxaandoon yàlla taxutoon ñoom ñaar kenn ku ci nekk da nga toog bés wala tëdd sa njaganaay ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci déception kon euh, ñu ne bismillah lu cheikh acheikhu acheikhu mooy lan da nga dégg suray wali cheikhi ayatun ida lam takun lahu ñu ne waat ñu dégluwaat keneen mu naan cheikhu mooy ki am shariatu ak xaqiqa bàyyi ci tënk kuy cheikh mu ne man faraga min nafsihi cheikh bakkan bi bu ko demee ba mën koo contrôler teg ko ci siraat siraat mooy ci tëli bi jëm ci hidaaya ci ci ci alquran foofu kooku bu bakkan bi yakuna hawaahu tabaan li ma jitu bi bu bàyyi loolu moo tax mu ne acheikhu man faraga min nafsi bakkan bi boo ko mënee jël ba maîtriser ko ba notatul la yow yaa koy contrôler rek bàyyi mu ne boobaa yow sëriñ waaye terewut moom bàyyi léegi ñu nag ah dañu saxla tafsi sëriñ mu ne waa moom day pour nga jël tas tafasil yi mooy mu ne la watlub murabbiyan xabiran naasihan kaamila irfanin imama saalih ne waa baax na bàyyi na la kon watlub sàkkul murabbiyan soxla bi ñu bi nga soxla ci tafaasili sëriñ mooy na nekk ku mën a yar yaraa ko xabiiran di ko xarañ xabiiran ba ñu nekkee ci école arabe 1988 suñu oustaz rahimahullah sidna omar siisa ñu gën koo xamee ci sidna siisa mu ñuy mu yore woon ne darsu tafsir mu mu ne rahimahullah hunaka farqun bayna al alim wal xabir sidna siisa moo ñu ko waxoon mu ne xabiiru sidna siisa nañu woon da ngay yor sa oto di ko dawal dawal dawal dawal dawal ba yegg benn barab nga taxaw ndax lan la ñu ne oto bi dafa paan si naa ne xabiiru yow mi doon dawal oto bi da ngay defar sa bopp yow yaay defaral sa bopp sa bopp oto bi continue mu ne kooku mooy xabiiru mu ne ñëwal alimu moom day dawal oto oto bi paan mu oo mécanicien mécanicien ñëw defaral ko otoom mu soog a mu mu ne loolu mooy farqu diggante xabiiru xabiiru day dawal otoom waaye boo oto bi yàqoo mu defaral ko boppam continue alimu mu ne mooy ki nga xam ne day dawal otoom oto bi paan moo mécanicien mécanicien bi defar ko moo tax bàyyi du jël otlub murabbiyan aliman xabiran lii sidna ali siise sidna siise moo ñu ko joxoon rahimahullah muy watlub murabbiyan xabiran naasiha nekk koo xam ne ku mën a laahibir kaamila irfanin shariato ma nga ne ca naasihan kaamila irfanin imaman saaliha ñu ne léegi kon nag ah yi bàyyi na la boo amee yii ci nit bu la neexee nga jël ko muy sa jël ko sëriñ am na ñoo xam ne taxaw nañ ne non non sëriñ ñun soxlawuñ sëriñ am na ñoo xam ne ñoo jóg ne léegi dañuy déstabiliser tariqa bi Cheikhu Tijaani tariqa bi ci boppam ko jëlee ci réew mi dañu tëju coob ruqure benn waaye ne ma daal dafa am ñu ne ci internet bi nee nañ Cheikhu Tijaani tariqaam bi ci boppam dañ ko fiy jëlee ci internet bi ma ne ko ci Cheikh Cheikhu Tijaani men mu ne ma ma ne ko ah ñoom ñooñu fu ñu nekk mu ne ma dafa am ñu leen di jàppale ci biir réew mi ak ñu ne bitim réew ci internet mu ne ma ma ne ko ñooñu foo xam nañu li Cheikh ñoom mën nañoo dégagé a yëfi Cheikh ma ne ko xamuñ ne cheikh bi mu taxawee tariqa bi keroog ca biir Sam'ud Iblis taxaw na ci pegg cheikh ne dina déstabiliser cheikh. cheikh Tijaani bi mu taxawee ba tariqa bi taxaw Iblis dafa taxaw moom it ci pegg cheikh ne dina fi jëlee tariqa bi te Iblis moo leen ëpp xaalis gën leen a capable ëpp leen ay soldat ñaareel ba cheikh da ngeen di jëlee fii tariqaam bi ma ne ko ah baax na cheikh Ahmed doomi cheikh Mahamad al Haafid al Masri dañ fi ñëw fii 2010 yóbbu tëb jumaa ji sama bàyyi dalal ko ma nekkoon ak moom ci fan yooyu ñuy waxtaan Cheikh Ahmed Mugharbilin rahimahullah mu am lu ma nettali mu ne ma suma benn taalibeeg baay taalibeeg Cheikh Abdul Haafis borom xam-xam la ci Égypte dafa nekkoon membre ci rabita al aalam ci tamaninat mu ne léegi taaliba baayam boobu ne ko ñun ci rabita bi dañu toogoon benn jamono la léegi lenn la ñuy def mooy toog di xas ay turuq yi nañ koo baax rabita bi bàyyi leen di xasal nit ñi seeni sëriñ yi mu ne ñu jël ne léegi dootu amati rabita bi na loolu dootu amati dootu ñu xasati kenn Cheikh Ahmed ne ma suma taaliba bàyyi gi benn na nadwa am ci rabita bi mu dem teew bi mu teewee mu ne ñu jox borom xam-xam bi représenté Indonésie borom xam-xam yi bi jël Cheikhu Tijaani ci jotaay bi di ko saaga ak tariqa bi lu ne mu wax bi mu waxee ba doyal léegi biñ joxee masri bi taalibe Cheikh Hamdal Haaba moom bi mu jëlee mu wax aada rabita ne leen yéen da ngeen waxoon ne nañ bàyyi xastante gi kon ay jullit nañ te ci mazallatul islam nañ toog nañu respectante na ko yow mii jóge Indonésia di ma xasal suma sëriñ Cheikh Tijaani yow yaa ngi bokk ci mazhabul wahabi yow wahabi nga li nga wax suma cheikh sëriñ Cheikh Tijaani li nga wax ci moom su ma ko waxoon sa du ma ko waxoon Mouhamed Abdou Wahab du la neex mën a waaj na tek Cheikh Cheikh Ahmed ne ma taalibab Cheikhu Tijaani bi jugee ci qaa bi ci biñ paree mutamar bi dugg ca néegam ci hôtel bi fi ñu ko dalal mu ne dafa dugg na tëll ci chambre bi rek ñëw feek Cheikhu Tijaani nga toog mu xàmmee Cheikh. taaliba da nga xàmmee sa sëriñ bi mu xàmmee Cheikh mu ñëw toog ci pegg Cheikh Cheikh ne ko maa ngi woon ci seen mutamar bi li ji doon wax yépp maa ngi koy dégg ñaanal ko na mes doxe ay soxlaam. waaw léegi boo ne da ngay toog ci internet bi kaj-kaj yi foofu wala ay wax ju bëri nga ne danga nga yow daa xamu cheikh da nga repp li mu yor ci ay soldaar yi ne ci ron seen ruq yi toog ay ñoo xam ne spécialiste yoo xam ne lu ne lañ jàng te seen formation yi ca kaw lañ ko jëlee malaak cheikh ren nga naan da ngay jëlee cheikh li mu fi indi ci ay xasar-xasar waaw kon léegi bàyyi ne la yëlee boo ko gisee ci sëriñ jël ko muy sa sëriñ nga ne ma waa léegi man pourquoi sax may soxla sëriñ ñu nga pourquoi ngay soxla sëriñ mooy yonent bi nee na la laqad kaana lakum yàlla nee na la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarjullah dañuy jël diw mi teg ko ci seen kanam yonent bi mooy seen idole du ab musicien du ab footballeur du ab benn waaye bu xam jëmut fenn yonent bi mooy seen idole xool leen ci moom waaye ñu ne léegi lu tax ñu xool ci yonent bi yonent bi nañu ah ci al adab al mufrad Buxaari mu ne innama bu'istu li utammima makarima al axlaq man bu ngeen ma toppee wesaare jikko ju rafet rek waaw ca beneen riwaaya mu ne innama bu'istu li utammima saalih al axlaaq li utammima makarim al axlaaq da nga ko fekk ci adabul mufrad Buxaari boo jëmee ci musannaf ibn abi shaybata wala sunan al bayhaqi wala nga dem ca al xaakim al mustadrak ala al mustadrak ala saxiixayn yi muy xaakim naysaburi wala nga dem ca musnad imam ahmad da nga fa fekk foofu ñoom li utammima saalih al axlaaq lañ lay wax waaw léegi ñu ne yonent bi dañuy soxla toppandoor ko ànd ak moom pour mu rafet jikko ji muy rafetal ak gi muy wesaare kon ñu ne ah ok waaye léegi kon nañu seet cheikh wala ñu ne nañ seet cheikh Ibrahim ah gannaaw mënuñoo gis yonent bi te cheikh Ibrahim alquran ak sunna la gisuñ yonent bi waaye la yonent bi doon wax ak doon jëf ci waqulu linnaasi xasnan ci wax jeeg jëf ji cheikh Ibrahim moom la meloo ñu ne kon bu la neexee nga jàpp ko muy sa ñu ne kon ndaxte makarim al axlaq yooyu yonent bi ñëw woon moom lay wesaare ñu ne kon Cheikh Ibrahim moom it ñëw ñu ne la kon mën nga koo jël idole ñu ne kon idole mooy lan nañ ko jël muy sëriñ ñu jël ko sëriñ ñu ko jël sëriñ sëriñ kon bu la neexee yow nga ne man soxlawu ma sëriñ waaye ñun am na ñu ne soxla nañ xool ci Cheikh Ibrahim moo tax Baye def daan toog naan la wax naan la ah, bu ngeen ñëwee ci dox taalibe bu ngeen ñëwee ba jël leer gi muy leer ak maarifati na ngeen fexe ba. di ñëw di fi bëri tànk pour ngeen mën a jël aadaaba suluk moo tax mu daan wax wa nahju sabili waadihun liman ihtada wa qad xaaba man yabgi ujaaji wa yatlubu kooku bàyyi daf koy iqtibaas ci la sultaan al aachiqina yi waxoon muy Omar ibn al-Farid na woon wa nahju sabili waadihun liman ihtada walakinaha al ahwaau walakinaha al ahwaau ammat fa amati may day iqtibaas jël charte saani bi ne la wala ki wa waqat xaaba man yabri ujaaj yoon ak siraatal mustaqim googu ma teg sama tànk foofu rek la waa léegi danaa jël baay muy sëriñ jël naa ko muy sëriñ am ku ne waa moom sëriñ sax moom waa léegi d'accord naa boo soxlaa sëriñ am na ku la gënoon a soxla sëriñ ku la soxla woon sëriñ ñu ne Seydina Moussa toog benn bés rek ci ngangu ci biir bés Israël yëpp wër ko mbokkam ya benn waaye nag waaye yow am na ku la prendre Moussa na Seydina Moussa waaw non non non amul kenn ku ma fa xam-xam àddina bi kenn ku ma fa xam-xam yàlla yónni Jibril na ko wax ko ne ko am na koo ëpp xam-xam Jibril ñëw na ko Moussa am na ku ëpp xam-xam kan la diw fu mu ne xam xam nga xam ah koo soxla na waaw ñu ne waa jógal nga wuti fan la nekk duñ la jox fan lay nekk direction bi fu mu nekk duñ la ko wax waaye diw la tudd fan la nekk waxuñ la Moussa ne ah baax na gannaaw man jóg naa pour sàkku sëriñ xaw ma fu mu nekk waaye dinaa jóg sacrifier suma bopp jël suma temps yëpp wuti kooku alquran di mellal ci taswir fan nii naan law id qaala Moussa li fataahu la abrahu li fataahu mu Yuusha ibnu Nun xata abluga majma albahrayni majma albahrayni xaliiju aqaba la ak Suez soo ñëwee da gis nga seen waxtaan tey gi da ngeen di concentré wu da ngeen concentré wu léegi majma al bahrayni xaliju aqaba ak Suez la saxratu xuut baa nga toog waaye Cheikh Ibrahim suñu soxla comme dañ koy méngaleeg majma al bahrayni gi Moussa doon soxla dañu ñëw ne la majma al bahrayni dañ koy soxla ci xaad mooy li Cheikh Abdullahi di wax bu Cheikh Mouhamed naan la fa zahrauna Cheikh Ahmad mi yegg mi kon dañuy soxla ci Cheikh Ibrahim ñu ne luñ soxla majmaul bahrayni ñu ne ah waaw mën nañ koo am ci bahrul muhammadiyati ak bahrul ahmadiyati wa baynahuma barzaxun laa yabgiyaani muy xidaaf kooku kay xissi la xaliju aqaba ak Suisse kii da ngay ñëw nag Cheikh Ibrahim taxaw dajale xaqiqa muhammadiya ak xaqiqa ahmadiya nekk ci diggante nekk di barzax baynal xaqiqatayn boo ko xamee xam nga sëriñ bu la rombee nag ah léegi la abraxu xata abluga majma al bahrayni aw amdiya xuquba ñu naa ah, Moussa nee na bu bu laajee ma joxe suma temps ba bu ci bu ma ci faatu sax ma faatu ci bu diiree bu diiree ay ati ati itam baax na aw amdiya xuquba ñu ne ko baax na jugal mu jóg di dox di dox di dox di dox kii mi ngi uti Moussa kee ma ngay uti Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim moom soriwul la waaye nag dafay nekk koo xam ne qaribun baidun moo tax jëyj boo daan la wax naan la wa fi tilka alxaqiqati qad qataana marahila qad tafooqu an ilxisaabi dafay nekk fii ci néegam ci Medina Baay sorewut waaye pour nga mën koo gis nag du yomb du yomb waaw moo tax mu naan la jëyj ba daan la wax naan la ndeysaan ca zahaba waaw lam taamal fa lam taamal basairu kee da ngay dox ma ngay dox jëm xaliju aqaba xaliju Suisse kii mi ngi jëm ci baxarul xaqiqati waaw baxarul miyaahi kafa manhu sharab ña doon doon dox soriwut waaye bu fekkee ne yàlla taxulaa jóg day sori Cheikh Ibrahima fa day sori waaye bu la boo boo boo amee sidqu ci mooy boo ne aw amdiya xuquba la abraxu xata abluga boo dëggoo rek fekk Cheikh Ibrahima mi ngi toog ci néegam bi muy néegi ban di la xaar léegi nag Moussa dox Moussa ak Xadir su ma la néew ci seen mbir waaye dinaa la defal lu ñuy wax mu waasana mu xaarana tuuti rek pour nga am sëriñ foog nga dox hitte gi am moo tax Moussa bi mu doxee ba mu yàgg mu ne yegg si xaliisu Aqaba toog nee naa la pointel Cheikh ñu ngi ci Cheikh léegi suñu xarit Ahmed Boucar mu alxaaji Baba Roqi bindal naa la téere bale muy Samaratu Sidqi والسبق شهد الله ثمرات الصدق والسبق di téere bu am solo di relation ak leetar yi doxoon diggante Cheikh Ibrahim ak suñu maam Haji Maabdu Haji Maabdu dafay laaj bàyyi ci biir téere bi naan koy na aradna al amanata ala samawati wal ard waaye na ko amaana gi ma ngi ca namoo ret maanaam euh, euh, muy amaana al uzma al xilaafa di wax Sidi Abdou naan ko itam xilaafa al kubra hiya al mu'abbaru anha bil qubbaaniya al uzma téere bu am solo téere bu am solo mën ngeen koo xool nag ngeen dem jëndi ko yéen ñëpp dama koy defal promotion dama koy publicité samaratu sidqi wa sabr suñu rakk Sidi Ahmed Bukaar mu Sayida Ruqaya moo ko bind téere bu am solo ci leetar yi dox diggante suñu maam xajma abdou ak suñu maam cheikh ibrahim mu bind bayna cheikh il kaamili mu cheikh ibrahim wal muridi sa saadi muy maamam fee da nga am cheikhun kaamilun mooy xadiru fii nga am cheikh ibrahim muy cheikhun kaamilun fii nga am moussa muy muridun saadiqun am xam waaye ci mujj gi daal danañ jotee mbëkkanti ku nekk ko fañaante hada firaqu bayni wa baynaka mu jax waaye sut ko gi danañu xam ca kanam ndax dana xam waaye cheikhu kaamil gi moom am nga ko cheikh Ibrahim xadiru itam am nga ko ndaxte moo tax bi mu doxee mu ne fa lamma jaawaza qaala li fataahu atina gadaana laqad laqina min safarina hada nasaba xadiru dafa toog yàlla wax ko ne ko am na luy nëw jëm si ci yow contact la wax na Moussa ne ko jugal mi ngi tudd nangam wëri ko fu mu nekk xam xadiru am na kuy ñëw Moussa la tudd yow itam boole naa la waaye léegi xadira toog fi mu toog ci mashiaxatu Moussa bi mu doxee ba yegg si fekk ci point bi mu ngi fekk mu xadiroo ngi sàngu ci xaliisu àq Moussa romb dox fa lamma balaga majmaa baynihima bi mu yegsee ba yegsi ci xadiru gis na ko waaye mu romb ko waaye ci dëggu gim dëggu xadiru moom it sëriñ la sëriñ la ndax dañ ko jox ndigal soxla mu naan Moussa eh maa ngi nii ñëwal soxlawu taaliba bu muy xool kooku daawa waaye comme am na ndigal dafay toog fi mu toog di ko xaar du soxla muy dem ci internet bi naan ko man Moussa maa ngi nii maa yi doon yàlla maa doon yonent bi maa doon cheikh may yi Moussa maa yi Isa yi kenn xamut yooyu dafa toog sangu di ko xaar Moussa yegg si dox romb moo tax bi mu doxee ba yegg si rombaat Moussa xadiru ma nga ne ñëmmu rek ndax itam mbooteeg yàlla gi xadiru yem yor. te ñu jox ko ndigal mu jox mu jox ko jaamam boobu jaam bi dina ñëw jël si ko Cheikh Ibrahim bi mu ne ñëm moom itam ci néegi banam bi toog yoonam néew ci boo ñëwee baax na boo ñëwut néewoon na la ah fafaada mi nii sirruhu mboot mi day mu fi boo amee sidqu dox ñëw da ko fi fekk fala ahad yaqsidu ni yaqsidu ni qasdu gi nag day nekk sidqu mooy am man xaajalaguma sax dégg nga ak sitku gi bu sitku gi amee bu sitku gi amee bu sitku gi amee léegi da nga ñëw fekk Cheikh Ibrahim mu ngi toog di la xaar moo tax mu ne yaqsidu ni ma arafa allah samad soo woon kibaaru nangam nangam nangam di la jox ay tafasil waaw Moussa amu na sitku dugg na nee na la wallahi nangam nangam la abrahu xata abluga nangam ah, baax na jugal bismillah mu yegg si falamma balaga majmaa baynihima nasiya xuutahuma fekk joxoon nañ ko mandarga na ko jëlal sa furéer nga defar soo doxee dox doxal ma tax ah si maam yi laa xam nga sama maam mu ne ma dama bëgg a rafet na ko ñeseen ñeseen piir doo rafet de da ngay ñuul ñaaw maam yi daal ki ci dàqoon ki ci rafetoon mooy bàyyi ñi ci des moom ay ah nga rafet maam daal bàyyi maam bàyyi daal moo ci rafetoon ci des moom kenn xamul la ñuul ñaaw waaye ñu rafet ñi daal baax na fa lamma balaga majmaa baynihima yegg si na mu xadiroo ngi ni toog xadiroon du ko wax mukk ne ko maa ngi loolu bokk ci surutu cheikh du oote boo xamee tur yàlla boo xamee ndigal ak yàlla da ngay toog ndaxte man arada zuhur fa huwa abdu zuhur man ara man arada an yadhara fi gayri ma adharahu llahu ma balaga min al ma taraka min al jahli shay kon léegi xadira toog comme moom itam ndeysaan Moussa am na dëggu na fa lamma jaawaza te joxoon nañ ko mandarga fiiriir bi fam muy waaye xam nga problème bi Moussa moom mooy yow yaa ngi wuti sëriñ ba pare di yóbbaale bëkk néeg problème bi foofu la nekk yow bëkk néeg bi lu mu ciy wuti Hmm? moo tax du dox yow koy dox nga taalibe nga koy taalibe dox waaye taalibe bu xenwaale ab bëkk néegam ñu koy defaral fiirin ab pajaas boo xam ne pom ak orange ay jus <laughs> baax na ay teroo ñu ne nañ ko bàyyi rak ak bëkk néegam yuusa bi noonu ay bëkk néeg qaala li fataahu aatina gadaana laqad laqina min safarina hada nasaba mandarga gi mooy fa seen jën boobu ngeen fiiriroon fa muy réeréet foofu la ah léegi bi toogee qaala araayta ida awayna ila saxrati inni nasitu alxuuta wa ma ansaanihi illa alcheytaanu an adkura taxada sabilahu fi lbaxri bee saraba taxada sabilahu fi lbaxri ajaba léegi ñu ne ah Moussa mu ne fartadda ala athaarihima qasasa ñu del siwaat defaat beneen demi tour dem na ñëwaat bi mu retourné ñëw nag tombeeg xadiru moom xadiroo mu ngi toor Cheikh Ibrahim du déplacé wu soxlawu la yow yaa ko soxla xadiru toog fi mu toog moo tax bi mu see mu ne ko fa wajada abdan dañuy soxla ci sëriñ soxlawuñ ci mu nekk di soxla soxlawuñ ci mu nekk di malaayiki dafay nekk di jaam ñu ne jaam la yax ak yàpp lay doon du jinne deret la rek la yàpp ak yàpp ak deret abdan ubudatu gi mooy la ma la waxoon fële ci dafay dajale diggante ibadatu gi ci marajal bahrayni ba ca la muy dajale ca mooy baynal xatmayni moo tax Cheikh Tidiane Ousmane daan wax bàyyi naan ko warisa alxitaama maa alxitaami fa xatmuhu la xatma yaxtimu xatma dal mishraaqi fiihi yatimu alfatxu summa bi fatxihi fatxu albilaadi wa saairi al axlaaq kon léegi kii dafay taxaw taxawaayi xaqiqa muhammadiya gi xaqa al ahmadiya mu toox baynahuma barzaxun dana xam moo tax fa wajada abdan min ibadina ñu laafal ko ci bopp bi dañ koy laafal ndax ndigal li ko yàlla jox moo tax yàlla ne min ibadina aataynaahu nag ñëw di biral rahmatan min indina mi allamnaahu min ladunna ilma Moussa nag soog a ñëw ne ah yow kii sànq ba léegi maa ngi lay romb faafaa di dama ko dikk mu ne ah suma yoon te dañ laa yebal kay man itam dañ maa booleeg yow ñëwal rek man kay seen naa leen yéen a fi sànq ba léegi ah yow doomu yuuxu sax ne ma man la lu ma lay yuuxu ay a fa lan la toogal mu toog léegi mu ne ko waa léegi qaala lahu muusa hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda bi nga toogee ci pegg ak cheikh cheikhaani ne waay baxrul miyaahi kafa minhu sharab wa min baxri xaqiqati la yakfi siwa algaraq yow damaa jugee ba gànnaar kii jugee ba Mauritanie kii jugee ba fu mu nekk bi nga ñëwee Sidi Rafaal ne bàyyi bi mu toogeeg moom ca Koosi ca bustaanul aarifina ah man day sëñ bi dama bëggoon nga baaxee ma ci leer gi ci dënn bi bàyyi na ko ah d'accord waaye Ibra mu ne ko ah mu ne ko fexeel ba bu ma dégg ci yow bi gën a uffin bu ma ko dégg ci yow Moussa ne Ibra Fall ne ko ba bu gën a tuuti boobu sax doo ko am ci ma Moussa ne xaddiru hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda xadiru na ah, ah baax na innaka lan tastati ma'iya sabra mënoo ànd ak man mënoo ànd léegi Moussa distance bi mu dox lépp ak lim sacrifié lim coono gi yëpp ñëw toog ak sëriñ bi am naa ko dëggu naa jokk jokku naa ci yow nga naan may naka lan tastataa ma'iya sabra Moussa nar a jëkk tàkk ay bagages am bëgg a gedd dem xadiru ko chance na ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra ko mayee chance mooy nee na ko léegi may na ko chance pour mu wax ndaxte bu yemoon ci naka lan tastataa ma'iya sabra Moussa day ànd ak Yuusuf ibn Nun jël ay bagages di nga yegsee ci Cheikh Ibrahim lan la la wax Sëriñ Ibrahim Mahmoud Diop mu ne ci innaka lan tastati ma sabra mu ne ma bàyyi daf koo yónni moom ak Cheikh Mouhamed Nazir mu diir moo amoon congrès islamique bu amoon mbuur bàyyi oo ko oo Cheikh Nazir ne ko dama bëggoon ngeen xutuma ci ndax boob mi ngi commencé wéradi ngeen xutuma ci congrès islamique bi am mbuur dañ ma see indil invitation yéen sumay doom jël leen ngeen xutuma ci Barham Diop jël invitation bi ak Cheikh Nazir bay ñaanal leen jox leen otoom ñu génn dugg ci oto bi ba mu yàgg xale bi ñëwaat ne de eh sëñ bi nee na ngay ñëw ñu ñëw dugg toog bay ne lee ko su may doom am xale yi la leen daan wax xale yi xale yi naam fa ngeen jëm ne congrès islamique la da ngeen fa fekk seeni nawle naam dama leen di dama bëgg ngeen garantil ma benn yëf ma garantil leen benn yëf lan bu ngeen ma garantilee na di ngeen am taqwallahi dina leen garanteel fu ngeen fekk seeni nawle yi da ngeen leen féetee kaw d'accord ngeen d'accord nañ bismillah mu ñaan leen ñu dem kooku mooy fii la Moussa di taqwallahi gi nag Cheikh Ibrahim Cheikh Tijani dana wax tasawuf imtithalu al amri wa ijtinabi nnahi fi zahiri wal batini min xaysu tarda la min xaysu min xaysu tarda la min xaysu min xaysu yarda laa min xaysu tarda waaye Cheikh Ibrahim bu ñëwee ci taqwallahi dina la wax ne la moom lan la jox na la exemple bi ci doomam yi waaye taqwallahi gi bi nga ñëwee nga soxla ko sa sëriñ bala nga am benn taalimi Cheikh Ibrahim moom da ngay am accord ak moom da def mu baayaa nga jox ko say condition mu jox la ay condition Moussa toog ne na koy dama soxla woon nga jàngal ma leen bàyyi itam bi nga yegsee ci peggam mu ne la ah taqwallahi gi ni ma ko nammee mooy mooy nusalli kama kaana annabiyu musalliya nasuumu kada naqfu sabila sumaydaay wa nunfiqu la nubqi nuridu siratahu naxuju ka xajji lhaashimi mutabbaci nukarriru xaqan laa ilaha kooku shariatu la kooku shariatu la bàyyi na la kon lii laa soxla rek bu ngeen ma ko mënee bu ngeen ma koy mënee saxalal ci sumay condition doomam Moustapha Niass rahimahullah ñu gën koo xamee ci Moustapha Nangam suñu bàyyi la woon jarul jaar ci laqab boobu gaañu na dafa am benn jamono ci année 62 mu nekkoon di jàng ci école français bàyyi ñu jox leen benn exercice ci français mathématique pour ñu war koo mën a trouver mu toog ci turbine bi ci bayal bi ne ci exercice bi ne ci ne ci ne ci bàyyi tusbaar jot romb doomam Moustapha bàyyi Moustapha ngi toog bàyyi julli ji tusbaar ñëw dellu néegam tàkkusaan bàyyi demaat julli tàkkusaan rombaat Moustapha bu ñu ñëwee tàkkusaan bàyyi oo so doomam doom kaay mu ñëw mu ne ko yow maa ngi la romb sànq bi may julli ji tusbaar yaa ngi toog fii may julli ji tàkkusaan romb la nga toog fii lan la mu ne ko dafa am exercice bu ñu jox école fi ci mathématique moom laa doon jéem a turfe bàyyi na ko turfe nga ko mu ne ko déedéet mu ko doo ko turfe ndax julli woo tusbaar ak tàkkusaan ci waxtu boo julli woon tusbaar ak tàkkusaan ci waxtu rek da ko turfe dégg nga Moustapha del julli ci waxtu kon loolu moom mooy dégg nga chariatu euh, tafasil yooyu mu lay jox léegi Moussa ne kayfa tasbiru ala muxadiru ne ko kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bi xubra ndax dafa ay ruq ay ngelaj yoo xam ne bu ñu fa jaaree mën naa am danaa ëpp qaala sa tajiduni insha allahu saabira comme jox na ko chance bi mu ne ah sa tajiduni insha allahu saabira sew sew yi tafsir dañuy wax naan la Moussa li tax mu mujj échec mooy sa tajiduni insha allahu min assaabirina gi mbokkam nga Ismail waxoon su ko waxoon rek dana waaye gana gannaaw jiitaloon na machiatu gi te waxoon na sa tajiduni insha allahu ah saabiran min assaabirina yooyu yëpp amatul problème waaye tag laafal boppam ci mbooloo gi baax na waaye gannaaw jiital na machia na sa tajinu ni insha allahu saabira wala aasi taalibe bi mooy la cay tegu mooy taalibe bi muridiyatu mu won ko ne ko lenn léegi dafa waxoon bàyyi la gën a tuuti uffin sax doo am ci man Moussa ne ko wala aasi laka amra lépp loo ma waxi du ma ko teg Cheikh Ibrahim naan la wala tuxaalifu walaw baana fasaadu ra'yi fa xataun li cheikhi aqwam ci furuu yi la nag ndax Cheikh Tidiane bu fekkee ne dafa sëdlu benn waaye ca jamono mu taxaw ñu demoon ci benn congrès fii ci réew mi mu naan waaw mu ñuy xas Cheikh Tidiane daf doon qabdu te kon daf doon sëdlu Cheikh Ibrahim daf doon qabdu te kon yow boo ne taalibe Cheikh Tidiane te pas-pas pas-pas charte la ci churutu tariqa bi boo deful li cheikh def te mooy boo sëdloowul sa tariqa bi wérul ñaareel ba Cheikh Tidiane daf daan gis yonent bi ñaar fukki yoon ak ñeent kull saam te yonent bi heure bu ko gisee yonent bi mos koo wax ci affaire istidlaaq qabdu kon bu fekkoon na qabdu mooy sunna yonent bi daf naan dafay wax seex na ko mooy sunna ma ne ah, baax fekk boo wax na ba pare ñu jox ma ma ne ko laay tey nga dee ñu dugg ci fo de waxtaan ak moom ba pare ñu ñëw ci naq aql jox ko naq aql yi ñu ne ko benn ma ne ko li ngay wax ni du wax benn Cheikh Ibrahim waxoon na bañ ko waxee ne ko Cheikh Tidiane Alxaaji Abdullahi sam baay dañ doon yoor baay yoor na ba 1944 sax moom ci boppam daf doon yoor moom ci boppam ba 44 mu bind Rafal Malam bàyyi na man wa yàlla li ma wax mooy alquran la ma sant moom la ma wan te li alquran wax ak li sunna wax lay def mën a waa ji Cheikh Tidiane li nga wax ne pas-pas charte la ci churutu saxa ma ne ko kooku charte la ci churutul kamal waaye du chartu saxa Cheikh Tijaani bu sëdloo bàyyi xabdu bàyyi bi mu jàngee ba mu xóor ko ne lii mooy sunna mu def ànd ak ñeent fukki at ak ñeent sanc na dëkk ñeent fukki at ak ñeent mu doon sëdd waaye bi mu demee ba mu leer ko ne lii mooy sunna mu def ko bind téere teg soppalu samp da ngay dégg ñaan dafa samp ndënd déedéet ndënd kan bàyyi bu sampee ndënd kenn daf ko mën a semp hay yéen kuy physique moo leen dàq doo moo leen ëpp doole fuuf maalaa ji deux mètres dix centimètres la woon quelque un mètre quatre-vingt woon waaye itam terewutoon baatin gi leer ak yonent bi moom mosoon na benn mbaam soo ma mu ne mosoon na dóor benn mbaam rek mbaam ma dee ma ne ko inna ah dóor bu dee ma ne ko fa koo pes ret mbaam mi loo doon wëlbati mu ne bi mu ne ko rëlle ren mbaam ma dee kon Cheikh Ibrahim euh, ñu ne fa in itabaatani fala tasalni an shay bàyyi na ah man day wax dëgg yàlla man laaj ma laaj ma waaye mu xaalafa ci usul yi loolu mënta nekk wa jaaza al iqtidaau bi ama wa muxaalifin fi lfuruu la cheikh xalil waxoon ana kuntu adrus inda taysir ma cheikh Ahmad al Hasan wa cheikhi al mauritaniyin بالنسبة li cheikh cheikh Mohamed kuntu inda cheikh Ahmad al Hasan rabbana yumassi bil xayr لكن نسيت الحسانية أو أنسيتها لا أعرف كنت متب... كنت متبيضا هذا متبيضا قومي كاخنا آه... Cheikh Ibrahim ma ne ko Cheikh Tidiane li nga wax ni du wax Cheikh Tidiane su fekkee ne dafay gis Cheikh yonent bi 24 heures 20 saa bu nekk ma ne ko am na ba léegi ci tariqa bi ñu gis yonent bi lépp loolu te duhut dara da gis yonent bi ma ne ko ñaareel bi yonent bi ba mu demee ca du dara li ma ci jublu mooy yonent bi ba mu toogeeg nit ñi ci aalamu naasuut ba yàlla ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum atmamtu aleykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina ma ne ko bi ko yàlla wàccee aaya boobu képp koo xam nga nag gis nga yonent bi ci gént boo ko gisee la ngay wax ak moom ak lam wax ak yow suñoo néew ci doo fi ñëwaat naa ñi yonent bi ma waxoon ne sàngara dafa xaraam xaraam wala nag ba mu waree wax wax na ko dégg nga kon ma ne koy cheikh bu gisee yonent bi la mu wax ak yonent bi yonent bi wax ci ay sët loo xab yoonam néew ci yonent bi la mu def def na ko ñaareel ba ma ne ko ay itiqaadu chartu sixa churutu sixa thalathatun taqta'i al-murida an axdu wirdin ala wirdi wa ziyarati al-awliya wa tark al-wird kon xadiru fa in ittabaatani fala tasalni an cheyin xata uxdisa laka minhu zikra d'accord na Cheikh Ibrahim Hamdul Mishri ñëw toog jaayanteeg moom mu jox ko tariqa bi waaye nag bàyyi na leen damay bëgg ngeen di ma laaj moom ne dafa indi tabaatani fala may laaj laaj leen ko tax moom mu mën a am sax di bind ay question di ko laaj ay taalibe Cheikh Mouhamadul Fadil Mbàkke mu ma soon a baay ci jamono sama baay ne ma Cheikh Mouhamadou Kabir Faye euh, fekk moom la àndatoon Cheikh Kabir Faye ci xam-xam comme mu ne ko Cheikh Mouhamadou Fadil ne ko ah, sëñ bi kii moom sopta mu ne ko waaw kii daal ndong taaliba la waaw kii moom macha allah di waaw bu ñu waxee bi bi ñu waxee euh, léegi bi Moussa d'accord léegi fan talaqa bi nga ñëwee yow itam ba fekk Cheikh Ibrahim ci néegam d'accord nga ak moom bi nga d'accord rek moom fan talaqa xata ida rakiba fi safinati xaraqaha kooku nee naa la kee xissi la ay yax lay yàq Cheikh Ibrahim ay maanan lay defar te comme kee bu yàqee gaal gi gaal gi day suux ñoom ñëpp ñu suux bàyyi ñëw na la gariqu nuuri lam yëku bil imaami fa kayfa bi man taxaraqa fi zalaami Moussa dañuy yàq xadiru yàq na gaal gi bismillah bu ngeen labee ku ci mën fooyi fooy waaye Cheikh Ibrahim labak xessi dina am bu ñuy wax Cheikh Hamdul Makki rabbana yumsi bil xayr dafa amoon jamono mu nekkoon ndaw ci gaa ci ci ci géej ji kaw la dugg ànd ak xaritam féey féey féey ba yegg benn digg sëñ maa ki xaw a yokk loxoom di féey di féey ba dugg yegg foo xam ne courant bi na xëcc ko ñam àndatoon daw dem ca bàyyi ah sëñ bi naam am ki lab na ca géej gi waaye ne leen déedéet géej xam na suma doom dem leen ngeen seet di ñëwee fekk Cheikh Hamdan Mbacké nga génn di dox ñu laaj ko mu ne dama yëg benn loxo bu ma ronu di ma puus waaye ne leen géej xam na suma doom du ko naan du ko lekk Moussa li tuxriqa ahlaha lay ragal waaye fii géej xam na moo tax bàyyi na non non dem leen dem leen ngeen xool dem leen ngeen xool biñ ñëwee fekk sëñ Makke ngi génn ci géej gi ji ñëw waaye yow sëñ bi yow sànq bi ñu la gisoon la doon labdi ah man de damaa toore gis loxo am yëg ab loxo bu ma ronu di di ma puus ba ci tefes gi <coughs> kon li tuxriqa ahlaha soo ko ragalee fee kooku yàq la Cheikh Ibrahim la muy ragal du yàq la muy ragal mooy maanan moo tax mu ne xariqu nuuri shariatu teggee koo rek kooku leer ga bu fa xamee itam laysa bil imaami du ko nangu moo tax ma man balaga al matluba fal yasa shakira wa illa fa jazmu ruux du bokk ci ñàngalem ndaxte da ngay laagoo te soo labee da ngay yóbbaale askan bu bari benn gaal la Moussa Xadir ña ca nekkoon dana lay sax naa ngam ma safinatu fakan waaye bi mu lab bàyyi nag lab gi muy ragal mooy nga laagu cheikh nee na la xadamaye ala raqabati kulli waliyin sharia ak xaqiqa kon ci njàngaleem du nangu mukk ngay laagu te mooy jël na xaqiqa laa jël teggi shariatu du ko nangu moo tax mu ne la xariqu nuuri laysa bi lam yaku bil imaam fa laysa bi imaam taxaraqa fi zalaami fa talaqa ñu doxaa ba mu yàgg ñu ne waaw mal xulaamu fa kaana abawaahu Moussa dajag xale ba rendi taxiyit xale ba dee ah yow liggéey moom lan la ni ko xale bi dafa am lu ma gis baayam ak yaayam daf leen di sonal ca kanam nangam nangam bàyyi na ko ah, man day newoon kay ñëw yow mi ñëwoon ci peggam ne la man bakkan googu ñuy rey ci xissi man duma ko rey ci xissi dama koy ran ci maanan te mooy jihaadu nafsi ba tax mu nan wa inchaa qawaani li xamli xilaafatin li kay arfaa tawxida walkullu muminu li yuslima jullu nnaas aqtulu baadaha jihaadan bakkanam dana rey dana rey bakkan waaye dana ko rey ci maanaam du ko rey ci xis ndax rey ci moo tax mu ne aqtulu baadaha jihadan wa inni muminun bi ko muxsin Moussa dox ak taalibeem ba ba mu yàgg ñu dajee xaat ak benn kër mu ne amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadinati waaye ñii dëkk bi dañoo siis xañaan bon waaw soxor léegi ñu ne defaral leen seen miir bi bay ñu ne ko ah waaye miiru xadiroog Moussa ga moom lan la mu ne jidaar ga kënz gañ fo defoon muy wirdul xatma tijaan moo tax mu dem ca London tëdd ca hôpital ba ba mu yàgg mu naan naan fa aleykum bil wirdi tijaani fa huwa kënzul axyaai wal amwaal wirdu cheikh bi rek la duma ca yegg baax na <laughs> jirim bi voilà mu ne wa ama aljidaaru fa kaana li gulaamayni ah kii dee ab jirim la ca mbiir bi dañ ko ko waroo koon a tabax ñu ñëw ci Cheikh Ibrahim mu ne ay déedéet wirdu cheikh la rek mooy kanzu aleykum bil wirdi tijaani fa huwa kanzu al ahyaai wal amwar ñu ne waa léegi euh, ndeysaan euh, Cheikh Ahmed Daam ñang suñu bàyyi ju baax rahimahullah dafa ñëw Qahira ñu ma nekkoon ci service am léeg-léegi su bëggee génn ooma ma indi taxi di ko doxal ay service ñu toog benn bés mu ne ma suma doom kaay ma ñëw ñuy waxtaan ñuy waxtaan mu ne ma bi ñu nekkee moom Cheikh Ahmed Daam ñang bi ñu nekkee fii muy papa suma xarit na siiw mu ne ma bi ñu nekkee fii ci bàyyi dafa am benn bés Cheikh Ahmed Dame Niang ne ma mu am benn ndaw su jóge woon benn barab ci Sénégal côté Louga ñëw comme ay bàyyi Cheikh Ibrahim am na ay nataal ay photo mu toog ba mu yàgg mu ne waa xaaral ma ñëw daw dem ndaw si comme Cheikh Ibrahim ci teraanga te day dimbale mu ne xaaral ma ñëw mu dimbale ma ndaw sa jóge Louga jël oto dox dox dox ba yegg si yegg si ci bayaal bi yegg si ci xay gi fekk Cheikh Ahmed Dame Niang ne ma daf doon bàyyi ca jamono jooju daf doon toog yàgg mu dindi dara ji teg teg kala gi génn ak janfa di dox ci biir dëkk bi noonu dox ba ca côté marché bi dox ba bi bàyyi génnee ci tàkkusaan gi noonu ndaw si wàcc ci oto bi nuyuwaanteeg bàyyi salaamaaleykum waaleykum asalaam man de maa ngi jógee ba Louga ñëwoon doon laajte Alaaji Ibrahima Niass moom laa soxloo Cheikh Ahmed Dame Niang ne ma bàyyi na ko waa ah, de mooy ki ngay waxat ndaw si na ko yow xamoo fu ma jugee mu ne ko foo jugee mu ne ko maa ko jugee ba Louga jugee fu sori ñëw soxla alaji baraam ñes nga naan moom mooy ki ngay wax ak bàyyi na mooy ki ngay wax ak daw saaga baay kon ñi ngeen di def rek xañaan buur xaayu dàggee commencé dal ci kawam saago ko saago yi métti Cheikh Ahmed su koy nettali day demam yàgg mu yuuxu di def nii naan bàyyi bàyyi bàyyi mel ni ku koy gis su ma koy nettali mu a bàyyi na teeg ndaw si dugg mu a bàyyi wiir yi gannaaw ko Ousmane Thiam jaari Cheikh ah ñas na nga def yéen masque yi xewi nañ ma foog ne corona jeex na ay lu xewi ni masque yi ma foog ne Cheikh yaa ngi sonn masque ba léegi ah man xàmme wu la woon sax corona di foog naa jeex léegi bàyyi jaar ca gannaaw Cheikh Ahmad Daam ña ne ma bi mu jaar yi ca gannaaw wiiri dugg jaar ca xay ga dem ca julleekaay ba ñëw ñëw suma kër Tooma dugg ñëw jaar ci néegi fi jigéen yi di mu dugg du ubbi néegam dugg ñëw toog ci lal bi sol daraa ji comme ndaw si dara ji gisu daraa ji kaala gi mu ne bàyyi toog ci lal bi sol daraa ji kaala wu ba pare o Ahmed Dame nag Cheikh Ahmed Dame nag ne ko am na ndaw su sol melokaan nangam nangam nangam demal nga xoo ko Cheikh Ahmed Dame nag génn mu ne ma ma ñëw gis ndaw si ne ko sëñ bi moo la soxla mu ne ndaw si dugg toog ñëw fekk bàyyi ngi toog mu xàmmee gis naa yi kii ki ma doon saagale Cheikh Ahmed Daam ñam na ma di mooy wal kaazimiina al gayz wal kaazimiina al gayz xam nga bu doon keneen moom ci ci sëriñu jamono yii agresseurs yi ak waaw bu soobee yàlla dañ ko dóodóor yoo xam ne ay eh, dafa jaari ñëw dugg toog o oh, ndaw Ahmed Daam ñam ma ndaw si sol nangam mu génn ñëw fekk ko mu toog Cheikh Ibrahim ndaw si bi xoolee gis ne kii laa doon saaga murus day yëkkati teraanga gam soxla woon jox ko kon euh, loolu mooy jàngale wa ama aljidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni moo tax bàyyi naan la alsaadiqu fi tariqina man arahu llahu alwirda tijaani mooy li ma la waxoon mooy kënsul gulaamayni mooy wirdu cheikh tijaani kese moo tax Baye bu toogee ca London xam nga ko dem bay nekk ci ay sukkuraat doon naxaate soo demee ba nekk ci ay sukkuraat li nga doon naxaatee da ngay wax nit ñi ne leen non non affaire bi doo óorut waaye Baye dem ba London toog dégg nga la Abdullahi wuld alxaaj defoon dem ba ca mu ak jamono mu dem oolu ñépp ne leen ñëw leen ngeen xool kayfa yamuutu akaabira tijaani yi Baye bi mu toogee London bu doon naxaate la Baye du la bindal naan la aleykum bil wird tijaani ndaxte dund na ci dundam lépp ci lii la ko def moo tax mu bëgg laa xamal ne lii mooy dëgg moo tax mu ne aleykum te loolu la wax cerno cerno Cheikh Hassan dafa toog benn jamono bàyyi boole ko jox ko kër ci dëkk bi na ko dama bëggoon nga xuutuma ci say mbokk tukulóor yi mu xuutu ko ñu toog toog toog toog bàyyi na ma ñu toog benn bés benn waay ñëw waaw costume sol benn costume jamono jooju mag ñi buñ gisee ku costume dañu jàpp ne tubaab la borom xaalis la waa jaa ngi costume ba pare nag yëg oto bu rëy bi mu yagsee Medina comme tukulóor la ñu yóbbu ko ci Carno biñ ko yóbbee ci Carno mu ne Carno man day dama ñëwoon soxla woon sëñ bi mu ne ko wax baax na Carno moom it gis na waa ji costume bi mu sol ak oto bi mu gaare kii borom xaalis la te ñoom comme njëriñ lañ bëggaloon sëñ bi ñu ne xaaral ma gaaw daw yóbbu ko ci bàyyi ndax xam naa ne kii hadiya ju rëy lay jox sëñ cat na daw dem ca bàyyi ah am na mbokk mu ñëw nangam nangam nangam nangam dama bàyyi na ko waa baax na ma jullee tusbaar ngay indi ko ñu julli tusbaar car na jël ganam gi yóbbu gan gi toog ci kanam bi bàyyi bàyyi na ko lii sey tànk mu ne ko man sëñ bi dama amoon problème commerçant bu mag laa woon amoon commerce bu ma doon def leboon benn somme ci banque lu toll ñetti million banque ba ñu ma bëgg a saisir demoon naa ca diw kilifa la ci réew mi pour mu dimbale ma ca 3 millions yi ba dañ maa toroxal waaye diw moomu daf ne ma daal 3 millions yi nga soxla xam na fi waaye bakkan bu ko joxe moo fi xamul waaye dinaa la yebal ci koo xam ne boo demee ca moom danga fa fekk 3 millions ya danga fa fekk bakkan bu ko mën a joxe no bàyyi na ko ñaata la mu ne ko ñetti millions waaye na ko baax na Cerno jëlal sa gan gi nga yóbbu ko sa kër ba dara Cerno génn jéppi waa ji hikkam doomi xaram bi day ñaan bi naka ñetti millions lay ñaan Cerno merog waa mere ko bu yàgg waa ji corno jox ko néeg ne fa ñaari fan ñetti fan waa ji commencé corno man ñëwuma fi pour nekk sa taaliba sëriñ bii de waaw man damaa ñëw soxla ndimbal ñetti million yi su ma ci manee dimbale su ma ci mënta dimbale mu wax ma ma ñibbi ñetti fan laa fi def man damaa nekk taaliba corno gis nga boobu corno maanaam bu ko mënoon a lekk sax foo koy lekk mi ngi ko mere bëgg de maa ngi foo ne kii indi sëñ bi nag da day ñëw di laaj ñetti sax ci jamono jooju bés bi mu wax Cerno na ko damaa soxla woon sa waa ji nga xamal ko ne ko man du ma taalibeem ñëwuma fi pour nekk taalibeem boo ma mënee dimbale ci ñetti million yi mu dimbale ma su ma ci mënta dimbale moo wax ma ma ñibbi ci bés boobu daay xoolu Cerno na ñëw mu na ko ana sa gan gi mu na ko ma ngi ca kër ga wax ko mu ñëw mu ñëw yegg si ànd ak Cerno salaamaaleykum aleykum wa salaam Cerno bàyyi na ko na gan na gani carno bi jëlal li ne ci ron njaganaay boobu nga compter ko nax sox soxla noonu la toll mu yëkkati njaganaay bi jël di compter di compter di compter ba mu mat ñetti million mu ne ko baax na jëlal nga waaye ji jël xaalis ba yóbbu carno gunge ko mu dem carno del siwaat ñëw ci baay sëñ bi man damaa rus de ji sama baay moo ma ko nette sama rus de sëñ bi wallahi damaa rus ah lan la mu ne ko ah yow sëñ maa ngi fa ne kii fay ñëw di la indi naka te kii lii lay laaj man moo xamoon ne day ñëw pour laaj la lii ci lii du ko def mukk waaye na ko déedéet Cheikh Hassan dem mu ne ko naam mu ne ko ñun li ñu yàlla togg ci jëf ci faraid yi ci julli gi ak li ñu war a def ci faraid yi ak suñu awraad yi laazim wazifa zikru jumaa suñ ko defee ba noppi deseexuñ fi lenn lu du toog ci jaamu yàlla yi ak seeni soxla rek moo ñu fi bes moo ñu fi dese waaye ne ko Cerno déedéet nga def doo dara ni ko ñun bu ñu defee li ñu yàlla digal ci faraid yi xam si suñu laasim wasifa zikr jumaa suñ ci paree li ñu fi desee nag ci bés bi du dara lu du nag jaamu yàlla yak seeni soxla hadihi hiya nafs tilka hiya nafs na nafsan lam yushriq alxubu fiha hiya nafsun lam tadri ma maanaha inna nafsan lam yushriqi alxubbu fiha hiya nafsun lam tadri ma maana ana bilxubbi qad wasaltu ila nafsi ana bilxubbi qad araftu allaha wasalaamu aleykum sañcina Tayba mooy dalu barhaamu xatum bi diw ba mooy dalu barhaamu ci aw rajab bisamba yowm alxamisa fii waxti lasri la kutbu wàcci soodaame kenn yaar asiyi puri billahi guddi keroog la leere yépp jolli li lam di fecci ngir bégee judumba kon mawlido hoo judumba jarna màggal képp ku def julit jogal màggal ko mawlido judumba jarna màggal képp ku def julit jogal màggal